observateur xëyee waxtaan wu yaatu ak aliwu Sall nekkoon maire bu waaye mu naan ci am na lépp ba mu des xel mu dal ñëwaat na ci waxtaan wu yaatu woowee ci li waral mu fareek Amadou Ba wax na it ci menaces yi di ay artu yu lang ci bopp mag ja président ba fi woon bu Sénégal président Macky Sall wax it ci mbirum Franck Timis ak it kuréel gii di pôle judiciaire financier observateur ci weneen wàll ak ndorteelu campagne bi ngir wotey palam député 27 novembre 2024 xëy defab gëstu ci mën-mënu Ousmane Sonko di fay ay coow yu leen di topp saa su ne naka noonu it yéenekaay bu groupe Futurs Médias wax na ci Amadou Ba ak planam jëm ci wàññi njëgam dund mi ak it Barthélemy Dias ci mbebetam xeex fi lii di ay fenn yu faral di kawe lool maanaam mensonge d'État yi mu gis ne dañ ko fee bëgg daganal wotey palum député yi nag ak ndorteelu campagne bi démb Le Quotidien yi jàppe ko xareb ñeenti ponkal ya la guerre des quatre grands Pastef ak fa mu mujjee langaa mujj ci wàllum transhumance ngir moytu gàcce Amadou Ba mi bëgg a peese boppam Macky Sall miy bàkk njaak ak Barthélemy Dias mi bëgg a bokk ci wàññi bi bañ a doon ku ne Pastef moo gën a sa ab départ démb bërit la def ak ay xelu yéene kaay bu ànd ku nekk nag ci kàngam yi ak yoon wa nga jël démb Ousmane Sonko nga woon ca zone des Niayes ak diwaanu Thiès Amadou Ba ca Guédiawaye Barthélémy Dias ca Biscuiterie Macky Sall moom ñu koy séenu ba tey ak source a soxna Anta Babacar ngoom bu sàmm sa kàddu yëkkatey kàddu ca mbuur di sàkku ci askan wi ñu dakkal na mu gën a gaawe li mu tuddee yorin wu bon bu waa Pastef Amadou Ba ak jàmm ak moom ca Guédiawaye jàpp ne nguur gi fi ne nanuy liggéeyee daa yeex lool dañuy Ousmane Sonko ci mitingam ca Thiès di leen dëkk mu ne 17 novembre la ñuy xam ne ndeke opposition amul Sénégal ñu des ak l'info mi séq waxtaan wu yaatoog Mamadou Racine Sy tëdd liste Al Sahar mu naan ca dinañu déglu askan wi ca daañu leen dégg dina liggéey it ci assemblée bu leen fa askan wi yóbboo ci luy gënal nekk nu retraité yi yeesal it système retraite bi Sénégal dinañu yittewoo it ci mel ni wàllu xëyu ndaw ñi ci gis-gisam moom Mamadou Racine si wàllu ñàkkum xëyum ndaw ñi kenn mënu ko saafara lu may dangaa jafandu ci secteur privé national bi ci laas Mouhamadou Madane Kane di ci wax ne danoo tàyyi yi sonn lool ci assemblée nationale bu président di lengee saa su ne président Macky Sall su ngeen bëggee xam moom lu waral mu nangoo doon tête de liste yi élection jàng leen ci laas ci gàttal mu ne élection yi daa fekk ne dafa am solo lool jongante la ngir ñu gën a ñoŋal sunu démocratie sàmm li ñu fi jot liggéey rawatina li soxal sunu koom-koom ci gàttal mu ne ngir njariñal réew mi moo waral mu duggaat ci géew bi Amadou Ba tête de liste coalition Nafoori Sénégal moom ci laas gis ne jikko yi leen war a ci arène politique bi anami défini politique bi l'évidence moom ne alliance pour le Sénégal mu ci terrain bi ci action ak mobilisation ànd ci ak tête de listam Alioune Sarr yéenekaay bi wax ci Pastef mi wéy di dalali gan Mamadou Ndiaye bu PDS ñëw na wàlliyaan si ci ñoom ca Fatick it maam Adama Ndour fekki na waa parti bii di Pastef Sud Quotidien ne mbër yi nag ñaar fukk ak benn ci fan la ñu am ngir yeey askan wi professeur El Hadj Oumar Diop jàngalekat droit public ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru njort ne wiiri wiiri ngañaay li ci loxoy Pastef lay doon ndax ci taarix ci Sénégal ba fii nguur gu nu fi mas a jox pale ba dañuy wéyle ak yow ba ci assemblée nationale CNRA mi lànk débat bi Ousmane Sonko Amadou Ba it mu ne àndu ca ndax CNRA warul tëju rek ràpp ci texte yi Direct News wax ci lu yaatu ci Doura Baldé di njàppale bu am solo un soutien de taille ngir Pastef moom ak waa Kolda dëbu dogal nañu àndi ak waa Pastef ngir mu ne ñu am majorité bu dëgër buy tax soppi yu xóot yi ñu digoon askanu Sénégal mars 2024 ñu man ko doxale ku ne nag ak na ngay campagne bu ñii di seenu toogu yee ci assemblée nationale ña des ñoom di seenu dund gu gën ak ca tane gañ leen di xoymet ca tugal moo bi di xéew mi ne ñaari téeméer ak fanweeri doomu Sénégal ñu bëggoon mbëkki la marin bi kar ci guddik ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre bi ca biir géej téeméeri kilomètre ak fanweer booy jugee ndakaaru daal di leen di wàññi mu mel ni kon xëyam ndaw ñi jot nañu jël ko ci na mu ware waslu ci àq ca bañ koo politique sunu bañee sunu ndaw ñi jeex biir géej